kon mbokk yi ñuy suivre à travers le monde ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah. moo xam muy Dakar Acti SD Leewtoo Lutte TV wala buur Gueweul Série Jackson nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm tey nag ñu ngi nekk fi nga xam ne nii moom mooy ci benn espace bu nekk fi nga xam ne moom mooy ci yoof ñuy nuyu borom place bi Ibulaay ah place ba nan la tuddati sax Poro Oto waa Poro Oto ah wala Oto Poro ak loo ci mën a dégg daal waaw Oto Poro wala Poro Oto rek lépp mën a lépp a jàll kon ñu ngi koy nuyu Ibulaay moom di suñu doomu ndey di suñu gayan tey nag place am lañ nekk nii kiñ fi woo kenn ki la Prince Sissoko si làmb defe naa ne bu ci wootee war na cee woote parce que yaakaar naa tàkkusaan bu ne tëgg na ko ci stade yi moo xam Iba Mar Diop la moo xam Demba Diop la ñaar nag ñoo ma seq tey comme ni ma koy waxee rek Modou Dia xam ngeen ko doomu yoof yaa ngi dégg di mbër nekk champion am lu mu soxla si làmb te jàpp na ne ci caat la koy amee caata ngi nii toog moom itam di doomu Grand Dakar ñaartel NGB ak John Waar ñoom ñoo ma seq tey PNS nag moo taxawal bii combat kon li nekk daal mooy ci ñoom bëri laay dem mais balaa may dem ci ñoom dinaa nuyu caméraman yi si ginnaaw caméra yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu Pape Maguette Ba mais nga xam ne moom bokk na si ñi tete Babacar waaw maa ngi lay nuyu borom Zik FM ak Sénégal Leewtoo fu ne waaye mention spéciale à Lamine Lamine Seck bu Lutte TV. moom mu njëkk a jox micro na ko Sénégal yëpp di dégg loolu Modou Dia maa ngi lay bëgg di la maa ngi lay fay Babacar di nuyu ñëpp ñu fi fekk. Mhm. assistance bi yëpp euh, di nuyu borom place bi Papis. Mhm. ak waa pro oto yëpp. Ibulaay ak di nuyu sama adversaire ak ñi ma àndal Amar Ba mhm. Baye Sall Libaas. di nuyoo caméraman yeeg yéen ñëpp daal. say weer ñuul na sa jaget ñuul macha allah mais xaaral ma ñu ñu wax ci loolu am naa caat ngay nap caat maa ngi lay bëggee. waaw salaamaaleykum Babacar maa ngi lay nuyu di ziar di ziar ñëpp di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu jiital nuyu bu sama adversaire di ko nuyu di ko ñaan a jàmm di nuyu ñi ma àndal di ñu nuyu caméraman bi yëpp di nuyu place bi ñu nekk borom place bi Ibulaay ñu ngi koy nuyu di ziar ñëpp waa Auto waa bu loolu weesoo maa ngi nuyu sama mbokk séeréer noo foxol séeréer mais sim naa nun ngonum fay sima ngonum mi caato ndoxono ɓi nun te naa sim naa no jaajafaalun to layano nga komin ɗum ñanteɗen ɗum ɓaat ñanke ko yo allah ceyn dam yimɓeede ma yimɓeede hena daal mhm, waw cat telna won e ɓoppam moom mu ngay ñaan ndam ci séréer modja ginnaaw bu mu la bu ma ci yow kañ kañ nga mujj bëri ak kan nga mujj bëreel waaw man le 9 laa mujjee bëri ak kéwél suñu borom jox ma ndam si kawam mhm. mu mel ni modja bu ma la seetloo da nga ne ci benn lancé macha allah la ñuy wax boobu ba tey ba ni nga mujj ci kéwel loolu lan la modja daa soppi doxalin wala waaw yàlla la rek lépp yàlla la bëri naa fi daanu bëri naa daan am naa combat man ak caat maa ngi lancé appel si sama ay mbokk li ko dagge ngor wakaam yoof di wax waa yoof que Modja doomu yoof la bu amee ndam yoof moo am ndam bu ñàkkee ndam yoof moo ñàkk ndam mu ngi waajal combat ak caat école de lutte Bambara ngeen ñaanal ko suñ borom defal ko si ndam di woo sama ay mbokk yëpp nag li ko daggee tund jandeer bi yëpp waa njar mburit njar tiijaan waa Morolan waa kër Baaba waa kër Njob ba rawatina nag samay sëriñ yi nga xam ne ñoom laa am amuma ñu dul ñoom muy ahlul kunti yu yëpp di ko dagge ndànk guyet sanc na ndeer ba jàll njaasaan képp kunta nekk boo déggee annonce bi jàppal ne moom mooy sa yëgal ndam laa bëgg sama combat ak caat Bo lan moo motivation nga jël caat waaw caat espoir la comme man rek ma doon espoir comme moom làmba soxlaa suñu komba xam euh, te fasi ga fasi naaru góor yi Babacar rawantewuñu si ngexal quoi fu ñuy rawante si ki jiitu maanaam ki dàq daw waaw nga xel de taxu fee raw faw nga mën a daw boo dew fas moom ma a da nga jàpp ne fas wu ngexel la du dem fenn rawanteew ñu daal ci ngexel non ndax moom day ngexel caat mii xam nga man ngexel moom ngay laay ndax day ngexel amul xam nga da ne fas fas yëpp ngexel mais da ne fa ñuy rawante mooy ci daw bi dama lay laaj ndax moom man rawante li ma la siy wax mooy li gën a clair mooy dama dama dama gëm ne maa ko man moo tax ma jël ko te ma ko war a daan muudu yow mii yow yaa man caat mii yàlla baax na yàlla ñu at suñu borom may tal ak fekkee ar génn suñu diggante suñu borom mi am ndam jox ma ndam si kawam barke Cheikh yaa dàq bëri kon yaa dàq xeex yaa ëpp fit yaa ëpp doole lépp lépp yaa ko ko def lépp kon moom day ñëw pour tëdd si yàlla daal mu yor ndam man naa kaa man mu daan ma ah déet muudu toujours làmb nga gis ku fi ku daan ku la man mais yow li nga wax yëpp bu dajee si yow doole ji fit bi mën a bëree gi ak sañ-sañ dogalu yàlla mooy dogal waaw non yàlla moom loo bëgg lu ne bu nee ci yow mu jàppale la ci voilà loolu jàpp nga ne da nga koy daan loolu nag laa ah, loo xool ci nga gisee caat mu toog nii nga xool sa bopp nga sañ yaa kopp doole maanaam da nga koo xool xam ne entraîné wul wala daa nekkul ci dara wala lu ko foo teg li nga wax non xooluma ko par image nii parce que góor moom boo ko yabee rek day fekk ngeen ñamante ba pare xool ma ko nii mu tuuti wala mu rëy wala mu kii man non non man li ma gëm laa wax. loolu jusqu'à la preuve du contraire na te maa ñaan suñu borom li ma wax mu doon liy am mooy ma daan ko jëlee bu gaaw bu leer bu set. ko ne yaa ko ëppale waaw. caat mbir mi da jarut a sori dégg nga wax ji mu ngi nii yaa ngi nii doole ji bëree beeg lépp ci moom la ne fas weeg nag ngexel gi moom da ngay ngexel par rapport ak ni mu ko waxee bu dee rawante la moom ci ginnaaw ngay des mu jaa ko wax. waaw bu dee rawante moom si ginnaaw la ñuy des loolu moom benn problème. déchangé bi am doole yàlla moo am doole quoi man am ma doole yàlla am doole. non danoo bëgg nu ngeen ñëw ci doole yu bëre. non yàlla moom kun fa yàkkoonam jooju xajul si doomu aadama damaa bëgg waaw wax. waaw man maa la gën a metti. ah voilà négocié wu ma ak yow nag. dama bëgg nga wax ak gars yi fula. waaw ñu jaay combat parce que Prince dafa toog ay at yu bëri ñëwul. ñëwul waaw kon donc bu ñëwaatee ubbee ñun ñaar. dafa war a sàppaaral mbay guy gi de na ñu bari fan yi ñëpp ak may war a naan ma mbay guy gi moom da du la may jàmm sëq saat ni ca bassin ba lay wax nga ne ko doo may lat déggoo li ma ko wax prince dafa ñëw ax lu bees kon daf si war a am lu bees si entre man ak moom na def fulla ma def fulla ay affaire da yàlla moo yàlla doole loolu dafa jaratee wax mais man maa la ëpp doole maa la man maa daa ko bëree caat kii faw nga ak moom de engage que waaye caat da nga war a wax waaw Babacar xam nga xam nga li ñu siy dellusiwaat affaire làmb la signature la comme li mu wax fu ñu jaay combat bi xam nga ne moo jëm yi bu toogee naa moom ëpp doole moom ëpp doole entraînement day wax lu ko neex hmm. Sénégal yi ñiy seetaan xam ne moo jëm mënu jaar fenn boobu ma doole c'est que naaw xamal leen nag fii dafa teng. teng fii dafa teng laa la wax. teng de mooy lu dëgër këj. maa ko gën a teng maa ko gën a bërëngu xamul sax. di koy yoot bi rek alquranu karim maanaam boo xamoon li ko yoot bàyyi li muy yoot non xamul sax li koy xam nga yàmbul wax na ne ñoo bokk génération xëy na maa ko xaw a si làmb tuuti mais ñoo xaw bokk génération loolu dëgg la parce que moom su ma ko jëlul moom du bëre su ma jëlul moom du ñoo mayante xaalis ñu ñaar man toog ma fi di xaar dara fuñ ma fuñ ma seetsee ku bi mu seet sama stade daa ko damay damay bëri moo dama jël ko bëree moom. mais li muy avoué ne moo la ëpp doole moo la dàq bëree. waaw mooy li mooy mooy mooy mooy li ma tontu rek mooy li ma tontu bu taxawee fii naa moom ëpp doole moo dàq bëre. Hmm. ay mbokkam la yab. daa yab waa dëkkam. daa yab ay moroomam waxoon na ko fi te coûté na ko seer. te bii ah. paa itam lu jour yi na ko coûté seer. ah moom daa mel ni la xooli daal daa mel ni indi. dégg ma de lu jour si kattanu suñu borom na ko coûté seer laa wax. bés ba dina ko coûté seer. dina ko coûté seer dina xam ne fii dafa teng mbër day xajam xamoo loolu la waaw yow de say takkaay moom doy la waar mba day mhm. ah, dégg nga de moom lu teng xam nga nee na nag nga xool li ngay wax ndax bés ba du baax ci yow du baax si man moom ay waxam la rek xam nga mbër mu nekk da ngay wax li nga xelaat euh, dafa teng loolu sax nangaaj ka moom man dama boole ay qualité yu bari si làmb comme yan ak yan mbër yi xamaguñ ma man damay technicien di tacticien technicien tacticien voilà te si carton suñu borom damay prouver leneen si kawam parce que dama ko war a daan danga war a daan war koo daan est-ce que mën nga koo daan déggoo li ma la wax dama ko war a daan amul ay man naa kaa daan mënuma kaa daan de yàlla laa ñaan ndam parce que moo am ndam mais man li ma gëm man bu may daan caat xëy ñu rob ma sax moom ma gënal mu daan ma barke Cheikh bu Mouhamad kon man dama war a xanaa daa am lu ne seen diggante non dara neewul suñu diggante moom mii masuñoo jote dara mu ngi nii maa ngi nii mais man dafa am fu ma war a dem si làmba mu jëman yow tey da nga soppeeku de mu ja takk sa verre yu ñuul sol sa jaget mu ñuul nga ñëw attaqué caat nii rek ni doo ko may fu mu yekkeeg bu làmb jaa ngay comprendre nu mel nii nga koy defee. bu arbitre soufflé li may wax nii yéen a ngi yor seen caméra bu arbitre soufflé damay dox si kawam. Matar sa mbër mi loo ko jox. loolu la Matar Ndiaye jox. Ah, Matar Ndiaye naa kaa gis xaw ma kaña. Ah? Matar wala yoof lañ la joxe poobar bi tey. non yoof dafa lu mu soxla te am nañ yaakaar si man. waaw da ngeen jël première bi passé xaw ma nag. kon nag man dama war a confirmer. lépp lu ma war si combat bi dama koy def. le le reste si loxo yàlla nekk mooy dogal. mais bu ma waree wax dinaa wax mais du ma wax lu débordé su ma waree jëf dinaa jëf ma jëf lu débordé dama la wax ñaari wax. technicien laa tacticien laa. Thiat yow technique ak tacticien foo ci toll. buur géwél man lépp laa boole technicien tacticien ak doole yëpp laa boole. technicien ak tacticien foofu laa koy fekk ba bazar yi ko sànni fal déggoo typhon. waaw le typhon de. typhon moom typhon moom lu nekk si kanam da lay di sànni kuy daanal ay kër moom lu muy xaar si nit. kii feneen fu ma jàpp si moom fu fu fu fu yàpp du karaw day dem. yaa wax lii feneen fu ma jàpp si moom fu du jàpp di kalaw day damm te bu doxee sama kaw combat day gaaw di jàppandi fépp na yaakaar na ay yaxa fay déggoo ma de bu doxee sama kaw combat bi day mu neex day gaaw mu naqari day gaaw si kattanu yàlla fu ñu jàppante ay yaxa fay ne tànk ngeen di jàppante ay loxo di faar déggoo ma de wax laa la wax bu doxee sama kaw mu bëñ day gaaw mu bëgg day gaaw yow it yow it de ruus nga ko may <laughs> yow nga taxaw da ngay jaaxaan nga ñëw da ngay dëpp si kattan suñu borom waa Lamine waaru may bu ma bu ma ñëwee day gaaw mu naqari la mu neex la su ma ñëwee day gaaw bu bu ma yow boo taxawee mat. ah waaye yéen waaye yéen ana ñuy àtte. booy su ma taxawee su ma taxawee ab ab bu sifflet yooyu nga wax doo ko jëfee. li nga lekk li nga añee moo neex rek moo tax nga nekk fi di mbel mbeli rek da nga xam ne yoof da nga xam ne yoof nga toll rek yoof moo la jege moo tax nga nekk fi di mbel mbeli rek waaye bu suubaa mbel mbel mbel mbel nga doo ko sax lu leer laa la wax yow jaay taar nga ñëpp xam ne jaay taar nga dem la ko commencé gars yi jaay taar la am gisoo ni nga mel si jaay taar ñëpp xam nañ la si jaay taar Thiat yow rek yaa fii ñëw stade di takk ay foulard yoo xam ne c'était en Kenya aux États-Unis Thiat tamit Thiat da nga xeewi quoi on la vérité Thiat yow sa ay morom yëpp bàyyi nañ la ah l'essentiel xamul ni problème bi l'essentiel man maa ñëw stade di takk ay foulard ku nekk ak sa man man man soxla ma kenn roy ma si soxla ma kenn roy ma si Modou Lo bi fi indee coupati moom foo paa yi dañuy solee coupati mi Modou Lo indee ay fulaar ak ay tintin ay ay ay kenn xamul caat yow ban façon nga kii ma xamal leen ma xamal leen moom waru ma waru ma nuñ may roye ak ma xam lañ laa bëgg ñu roye ma jikko ju baax a jikko ju rafet te su ma ñëwee si làmb moom laay def ak am fulla ak daan voilà xama xama xama xama lu xama xama xama lu problème xama lu voilà combat moo ñu boole combat moo ñu boole mais man dépassé wu ma la jaru nga may dépassé naan ay. non non loolu nga affaire loolu affaire la parce man respecté wu ma. parce que non de. ma ma kon devant tout le monde. baal ma ak ñàkk la baal ak. ma ma meru ma la ma ne la maa tey manoo si dara. a ah, waaye na di. amee ah, waaw. maa tey diisu baal ma ak si jullit mu ne mu baal ma ak ma ne ka maa tey. yaa tey dama dama dóor wala la maa def. tey ba teyaatoo mbaa. waaw yow maa fi mu toog nee moo tay ba tayaat. fi ma toog nii ne bu ñu si làmb ja boo ko waxee mu mu métti sa kaw lu leer laa la wax. Ah, man nee la bu at mi soufflé sa kaw laa jëm nga ne ma su ma ñëwee day la day gaaw c'est parce que boo ma xaaree ma jaaxaanal la nga ñëw ma dëpp la. yàlla baax na yàlla yàlla yàlla yàlla may wér ak tal ak fekkee rek. bala suuf oh, ana prince boole maag ñi dem bàyyi ñu fi. yàlla yàlla may wér ak ah. tel ak tak fekkee. man de prince mu may la ko may ma ko may ko suñu mbokk may ko say mbokk. mënu ma leen atte de prince. waaw amiin. <laughs> est-ce bañ mu gis say bët sax non samay bët fan sànq ba léegi maa ngi summi sama ay ah? ah waaw. summil weer ñu xool. ah summil ñu xool. waaw yow doo ah xool bët di est-ce que bët yi xonqul ndax naanu man Moodu say affaire daf maa man daawu ma la ah déet Moodu mais est naanu ñamul dara tey xam nga daa sedd. buur géwél man ñëpp xam nañu ah Modou man ñëpp xam nañu ma waaw doo tekki veer dafa am fu ma jege am fu ma bëgg waaw tekkil ma lu net yi duma ko tekki gars yi lay seetaan la koy ñaan waaw duma ko tekki lu nit xelaat baax na mais man je sais que li tax may sonn pour waa kër la te si kattanu yàlla barke Cheikh bu ma xelaat caat ah <laughs> yow déggoo li ma la wax yow kii mbëru mbëru mbëru mbëru séréer la de eh, moom masula daanu caat waaw man masuma daanu kii daan yàllaa ko yor mais li ma war laay def mais nag ñu jox la mu neex caat mu naqari caat li ma war laay def te loolu laay wax ma xamal leen ma xamal leen kii buy dem ngemb ji day jë day dugg gaal baal li ngay wax te foofu mun foofu ñëw ñu ñoo ko moom xam nga loolu ah. fu mu nekk fu mu nekk fu mu nekk ñu ñoo ko moom fu mu nekk ñoo ko moom am na luy feeñ de leeralal la loolu nga na ma da man nëbbuma de fu muy dem ñoo ko moom fu muy dem ñun ñoo ko moom ama sama nijaay ma woo tey ne ko ki ki koy ngemb. waaw maa moom ñoom ñoo bokkoon ñoo bokkandoo génération ñoo xam ne lépp dëgg la. booy bi nga nekkoon du la fa jële. mu dem ba dugg ci rapide sàmm la. moo la fa jële mu neex la mu naqari la par force dimanche dama fay dem. xaar leen ma ndangaan xaar leen ma ndangaan sàmm dimanche dama fay dem. mu fexe la boo jégee doo bëri si de boo jégee doo bëri si de tous lu leer laa ne boo jégee doo ba sa xaalis ngay yàq ji rek dimanche par force damay dem ma sa xaalis yàq ji rek demal rek sa xaalis sa xaalis ngay yàq ji mun ne rek maa nga jon ma ne mun ne moom bu fa dugg sa xaalis ngay naa dem ñu nax ma mais par force damay dem waaye affaire ba mun de si yow de xanaa la dinañ dem mun de ay film la ay yow yow la loolu loolu dernière position la si man caat damay rey sama bopp pour daal mais dama yow doo ñaan lu yow yow doo ñaan lu Ah, ma ne doo ñaan lu yow ma ne doo doo man dinaa dem jon waar mais par force par la force damay dem munde manoo ah, si dara dem jon waar dem munde de danaa fa dem danaa fa yóbbu lamit ngaana ay eh, ñu ñoo moom munde maag si ta ñoo moom ak ak Modou ñu ñoo moom yéen ñett yaag si ak Modou Lo moom munde kon Modou Lo sa waay dina amoo waaw léegi léegi xam moo amam macha waxtaan wi neex na combat ba non pour oto dañ ciy wax sax nag ibulaay kooku bees ci waxul dara dayu pour oto seeni añ a njëkk a neex ceeb bañ lay jox fi la lu ngeen di wax ibulaay mi pour oto fi mu ñu dalal tey en tant que jeune bu taxawal lii di jaay oto du luye oto Ibra dañ koy ñaanal rek parce que wàññe boo gis si benn lay commencé. suñu moo jàppale prince pour lii mën a am. voilà di ko ñaanal suñu borom yokk ko quoi parce que prince toog na temps bu yàgg tëgg. kon bu demee ba tëgg nag xam am na nekk si ginnaawam bon dañ leen di ñaanal daal yokkute quoi. Mm-hmm. looy wax ci Pro Auto. man li ma wax si Pro di ñaanal jàmm di ñaanal Ibou Laye sama mbokku taalibe. Mm-hmm. ñoo bokk benn daayira xam di ko ñaanal. Mm-hmm. place am di ñaanal prince nag parce que prince macha allah combat bi sonn si trop. dégg na si lu ne tamit. mais teew mu jàpp rek jàpp jàpp mu jàpp rek xam li ma bëgg xam nga mu jàpp mu jàpp ni mu jàpp rek. waaw kii ruube yi mu lay ruube nag it nag muut jëmi topp na la mbooro de. waaw. non grand defal ndànk rek. non mu ngi lay napp kay. non non may may may ma tuuti rek may ma tuuti boo waxee boo waxee ma déglu rek may wax may ma ma déglu la. waa léegi tàggool. waa di. noo moom na yeggale ba pare. non waxal moom na pare na tàggoo moom dina am pare na pare na wax. na wax na wax. caat tàggoo non na wax na wax. non doo tàggoo. non na wax ñun ñun ñun ñun ñun ay ay na wax. ko wax quoi. waa léegi tàggoo leen. mujj tàggool ah, mujj tikki na verre de Lamine. dañuy lancer appel di woo suñu ay mbokk di woo ah, ñëpp di woo ñëpp ñu nga xamante ne. Euh, am nañu leen si combat bi rawatina waa Ngor waa Wakaam waa Yoof gi nga xam ne ñoom laa am bu ma amee ndam Yoof moo am ndam bu ma ñàkkee ndam Yoof a ñàkk ndam di woo tund jandeer bi yëpp li ko dagge bayax njër murit njër tijaan kër njoba kër baaba tiwaan di woo kunte yi fépp fu kunte nekk li ko dagge ndànk gu yett sanc bu na ndeer ba jàll njaasaan li leen wax ñu ñaanal ma ma am ndam si kaw caat bég ci yow Modou Dia caat waaw li may tàggatu mooy jàkkatu sama mbokk séeréer rek no ma foogale séeréer mais sin naanu ngonum fay sima ngoon to jafalaanu to ci waanu waa ci waan di sant sama supporter yëpp di sant waa NGB bàyyi ma kenn di sant waa Grand Dakar waa Taïba xam waa zone A waa zone B di sant waa Colobane bàyyi ñu kenn képp kuy bëggee Thiar daal Thiar mu ngi lay sant di la gërëm xam nga di la ñaan nga dolli ko ñaan ñu dolli ñu ñaan yàlla may ñu wér may ñu tane ba talak fekkee ñu dem defi comme ni ñu ko daan defee comme d'habitude yàlla defal ñu jàmm may ma jàmm may sama adversaire jàmm xam nga may axlu làmb di ñaan yëpp jàmm di ñaanal Sénégal yàlla na fi jàmm te yàgg te wér wala aca kon salaamaaleykum borom du bii nag du Iba ba moom fii moom bu fi boyam tey yow yemal ci sa at buur damay wax de Sénégal yëpp a ngi dégg salaamaaleykum nuyu naa leen Babacar nuyu bëri nuyu ñëpp ñu fi teew ñu nuyu waa Sénégal yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla defal ñëpp suuturaax jàmm at bu bees bi ñu dugg yàlla def si jàmm si réew mi képp si nekk li nga bëgg yàlla defal la ko di nuyu association promoteur yi di ko teg si loxo président bi Pape Abdou Fall ak vice présidente Ndeye Ndiaye Tyson ak Fallou Faye secretaire général ak ñëpp daal ku lim juum voilà di nuyu fii ma nekk muy pro auto fii nag suñu diwaan la Ibrahima sam patron waaw Ibrahima sam patron la no mooy sama patron parce que man maay fii fii ñu ne maa fi euh, responsable achat lépp lu fi ñëw si oto rek maa kay jënd. voilà ñu doon ay jeunes. ànd ñun ñëpp boole suñu doole. pour yëkkati waaw. parce que ne rek pour pro. léegi combat bi nga taxawal nii combat bi moom déjà bëri na coow. Mhm. ndax kii daa jóge yoof xaw ma ñu ko jox. kii moom moom moom itam xaw may mbiram ndax mujj na sax yaram ma bëgg a tàng waaye daal loo ci mën a dégg tàng na combat bi taxawal ko yomboon na. waaw jafewul jafewul. parce que ah, waaw jafewul si Modou xam nga sa daf ma jege lool caat mi it la ma jege ndax am na balaa may tëgg Modou Dia caat laa njëkk tëgg te am na fu ñu jaar yàlla def teraanga suñu diggante tam quoi voilà Modou Dia doon frère tam ñun ñëpp ay jeunes lañ ñoo maase waxtaan la nag prince ma nekkee bi ma nekkee village mu woo ma dama ko bu soobee yàlla combat maag moo jabi dinaa ko bëre dinaa bëre fi ma fi ma woowee laa foofu laa ko waxee am na solo fi mooyee foofu laa ko wee dama ne sama samay mbokk buñ nangu buñ nangu te naa ko bi parce que fi yaakaar dëgg day tungoom seereen waaw loolu am na affirmé na ma ko confirmé woon na ma ko dina bëre mais xam nga rek tam muut ja dafa tool foo xam ne peut-être yaramam moo tàngoon ba dafa bëggoon kuta kut combat am taxaw quoi te c'est normal tam mbër moom danga war di bëri soo bëriwul leneen ngay def le retour de presse naka ngay ñëw bi yoon incha allah ginnaaw combat bi nga ñëw waaw comme ñu ngi fi woon jógewuñu fii mm. benn saison rek lañ toog tëgguñu voilà te comme mbëri dañuy année blanche promoteur tam mën naa année blanche soo xamul fa nga jëm foog nga taxaw ba mu leer nga demaat. Yékini Junior Sa Thiès foo ci toll. ñu ngi si kawam fu mu nekk nii damaa toogoon di xaar nii pour ñu ñëw def signature bi dañ ma woo urgence ma dem si loolu ñu ngi si di liggéey ah, ñu ngi siy liggéey nañ ñaan yàlla rek def si sutura su defee sutura incha allah dina taxaw. am na yaakaar combat ba taxaw. mais man am naa yaakaar sax tëgg Balla Gaye Boy Niang. boobu ak beneen. affaire yi gëm-gëm la rek ñun gëm nañ mën neen liggéey xam nañ nan la làmb di doxee xam nañ lan la léegi le reste moom yàlla mooy mottali quoi mais bu dee fit la war a def dañ koy def incha kaay taxaw ni ci diggante ñaari mbir ngeen foto combat bi yow dafa am loo fàtte. wax ma ko drapeau Marcel Diagne la. Marcel menn mi. Marcel Diagne suñu Marcel maag Lamine bu waaw bu jam ñaajo Lake City drapeau am la. te ku xam Marcel xam ko ku ko xam xam ko ak Aly Ndiaye ministre de l' xam ko wax Boucher l'américain xam ko wax Matar Soubatel mm-hmm. Mouta ah dafa Diop dëbb mm-hmm. ñoom ñëpp seen drapeau la mm-hmm. ku lim juma am na ñeneen ax ñeneen ñoom Abdou Karim merci coow li bëri na ñëpp seen drapeau la ñëpp a ci biir ba pare dafa am lu particulier si combat bi caat Lac Rose moo nekkoon euh, tête de file mun neen ko wax xam nga Fass la nekk moo jiite woon Grand Dakar mais tey caat dafa am sas parce que Grand Dakar bi yëpp biscuiterie yi yëpp dañ HLM ñëpp a war a gunge caat ñu ngi koy commencé xasee dara que léegi du mobiliser donc loolu caat dama koy wax duggal fépp wax ñoom parce que arène nationale lañ jëm te arène nationale du caaxaan. lamb bu af moom bëgguñu ko. suñu bëggee presse delluwaat gàddaayaat rek ma af. donc te kii tam moo ja yoof yëpp moom lañ yaakaar. Malick Niang toog na cinq ans bëriwul. kenn juutu ko yoof donc tundu lebu yëpp dañ ko war a gunge ah Yoff Wakaam Ngor ànd ak moom incha allah dernière signature bi mu ngi amee arena arena la Dakar arena lay amee le 4 avril Pape Diouf di direct di fa tëgg euh, grand bége si la ñuy def seen dernière signature une semaine après combat bi am donc Diamniadio Lake City tam am na lu muy wàcc dinañ dem Diamniadio dinañ dem Radisson daje fa def fa benn affaire bu nice di gërëm ñëpp encore waa jur yi yaay pap ah maam xarit ñu jaay ñëpp ñu ngi leen di gërëm. am na solo voilà di gërëm waa xarañ famille yi ñoom Ibou ak ñëpp daal Pa Maguette Ba ñu ngi koy gërëm gërëm journaliste yëpp. am na solo